maa lay fay bu baax. démb naka ngeen waajee démb mystique bi bàyyi na coow li bàyyi na naka ngeen waajalee Youssou parce que ñu ci bay dégg naa ñu ne Youssou ba bi muy ñëw ci làmb ji jekkuwul woon loolu am na. waaw maa ngi lay nuyu di la siyaare di nuyu monde entier di nuyu axul làmb yëpp Youssou Ndour sama mag la. fii maa fi gën nekk gone ñi fi toog ñëpp samay mag lañ. Mhm. waajal nañ làmb ji niñ ko war a waajalee. waajal nañ ko ni ñu ko war a waajalee yëpp ñëw nañ. ñu ci bàyyi nee bi ngeen ñëw démb jekkuwu leen làmb ji. waaw làmb xam làmb dafa luus te ñun fii nga toog nii Père Alioune Seye fii la dëkkoon Baye Balla dëkk fii mag ñëpp dëkk fi ak làmb fii la nekk. Mhm. ñun ay gone lañ xam nga juddoo fii koñ bi mu nekk koñu làmb nii ñuy wax ak yow ñun yënguwuñ ci làmb mais suñu mag yi yëpp ci làmb la ñuy yëngu. kon ñun xam nañ làmb jekku nañ jekkuwuñu bëri nañ xama yàlla may na ko ndam ñu ngi koy ñaanal yàlla ndam li jikkoo mais mbër da ngay waajal. da waajal. waajal nañ ko ni ko war a waajalee ànd ak gaa yëpp moo Touba Mbaye Fall Bekaay mi Siteu Samba Lawbe ñëpp àndandoo waaj ko ni ko war a waajee. làmb nag jekk ak ñàkk a jekku bu jotee da ngay bëree. waaye jekku nañoo wuñ sax du wax ji li wax ji mooy waajal nañ ko fi ñu war a dem yëpp dem nañ fa gars yi sonn nañ ci combat bi trop Youssou entraîné na ñaan nañ ñi ko doon ñaanal ñaanal nañ ko. xam nga nee nañ combat bi dafa yomb. combat bi yombul. yombul yombul. lu tax ndaxte ñoom def nañ li war a def lépp dugg ci géew bi ñuy naxante ku nekk di yoot sa moroom li la Boy Niang wax moo am. booy caatu yof bi muy daw ci kaw yuusu boobu yuusu gisu ko yuusu dafa siggi taxaw jonn dañoo dem latéral mu siggi taxaw jonn mu dóor ko góos yuusu bi muy siggi di fayu si fekk dajawaat ak beneen ku reculer dal si saako yi. dafa mel ni yaa ngi ñëw sama wax ji de dafa ni démb bi ngeen di dem jekku leen ndax mba muy ñëw sa kaw di la dóor munoo fexe ba gis ko te yéen ñaan doo ngeen ci digg géew bi. xam nga làmb dafa am ay secret dafa am ay secret yoo xamante ni bii loolu looy dund ci biir làmb ji la. Mhm. xam nga lu ma la wax. looy dund ci biir làmb ji la waaye ñun daal ñu ngi sant yàlla. moment bi combat bi jeexee dama la gis nga dugg ci biir géew bi attaqué ñoom caatu yoof lu waraloon loolu. waaw parce que booba ñoom dañuy ñëw jéggi barrière bi ñu bàyyi leen ñu sànni suñ cumukaay ay xor ak lu ñu bëgg a def di ko def. ak seen cumukaay ni mu soriantoo. ni mu soriantoo ñu koy may mu ñëw ba si barrière bi di sànni. ñun buñ jubee foofu ñu téye ñu. ba biñ nekkee si biir géew bi li tax Mbaye Fall mais doon xataraayu am na paa bu nekk CNG borom ndel bi tam soloon jeget bu noir bi. Mhm. dañu ubbil caatu yow porte bee mu dugg ñun ñuy dugg mu fermer port yi. Lamb nday ji Cheikh dangay ngay tëddee njaaxaanaay yi. kooku leer na ma ni CNG ñoom santu ñu ko loolu. la moo tax ñuy ubbil porte bi waa Yoff di leen ko tëjal da ngeen leen neexul wala lan la wala li ngeen di di def lu ñuy aaye. c'est defu ñu lu ñuy aaye lamb tegtal la. ñu nag Caatu Yoff ku xool démb xam ne bokk nañ tegtal yu bari yuñ nduróole njëkkantu la ba ci ay butéel ba ci ay butéel nduróole nañ ko ñuy mhm. njëkkantu làmb ji ñun lu ñu war a def dañ koy bàyyi moom mu def ko ñun ñu def ko si kawam da ngeen bokk sëriñ wala nu mu demee parce que ay butéel xëy na bokk dëkk bu jógee mais peut-être ay sëriñ moom mën nañ ko bañ a bokkale quoi waaw yéen bokk dëkk bu ngeen jëlee ay na xëy na ñu bokk waaw parce que moom ah lu waral ngeen di bàyyi ba moom mu def noppi ngeen di doog a def tegtal la tegtal la dangay dem si làmb ak nawetaan ñooyam da ngay dem ñun la bu defee lii defal lii dina def lii boo paree defal lii ki demul kër nit naan la dina def nangam boo demee gis mu def loola kooku gis na làmb ji. ki toog fi mu toog demul kër kenn ci yéen ñaar ni la bu bis baa dina def lii bu ko defee ba pare defal lii kooku gis na li xew. ñun bu ñu bëggee def lii si kaw ñu aaye ñu. gisoo ne ne Youssou Ndour day daanu. xëccoo la làmb ji xëccoo la woon. kenn moomu ko woon voilà. làmb xëccoo la. dox ko. war a perte ñaar ñuy xëccoo faaw kenn njëkk ci la ñuy xëccoo sant nañ yàlla bu baax na di ñaanal Youssou Ndour ay ndami ndami ndam topp ci ba mu dégg roi des arènes ñaanal caatu yoof ndam ni jikko. mbër bëgg naa la. defet bi dalaa laa jàpp wala mu demee noonu. defet bi waaw message mooy loolu moom bi moom mooy loolu mais sant yàlla quoi. Euh, ngeen ànd ak Youssou di préparé naka ngeen waajale woon ak moom. làmb ji préparé nañ ko. côté bu ne ah préparé nañ ko ak ñun ñu ko doon préparé ak ñun war a àndal ñëpp def nañ li ñu war a def lépp yuusu ñoo entraîné ndoo fépp ñoo ko lépp ñoo ko defandoo mais li ma siy mën a wax rek moom mooy démb mënuñoo am. mais est que xeex bi yuusu liggéeyoon na ci bu baax a baax. chaque jour xeex bi lañ ko doon favoriser sax li mu liggéey si xeex bi sax liggéeyu ko si bërëb yi mais jour booy daanu cuune ngay nekk waaw. calculé woon nga Habib dina siffler caatu Yoff ak AS Lène. waaw sóor nañ ko ci biir bëre bi sóor nañ ko ndax Youssou dem boo xoolee ni mu bëree nga xam ne conseil la bëree Youssou buñ ko bàyyi woon ak xelam kese kese kese kese kese day xëpp ci kaw waa ji mais Youssou waaw Youssou du bëree noonu mais conseil la bëree hmm. naka la mën a def yeneen prochaine adversaire yi ñëw parce que maa ngi dégg am na adversaire yu ñu koy limal naka ngeen di def da ngeen di toog xaar wala da ngeen di jëlaat benn avance. non non nii nii dañuy bëre ndax Youssou mu ngi si dynamique. mu hmm. ngi si forme mi nga entraîné suba dañuy dem entraînement. maa ngi dégg Youssou Ndour armée. armée moom moom yàgg nañ ko wax moog Youssou mais moom mooy daw mais comme que moom démb daanu na Youssou tamit daanu na na jël ñu bëre. Youssou Ndour ambulance. ba tey bëgg nañ ba tey bëgg nañ. Hmm. waaw. Mbaye nuyu naa la. waaw Ka ñu lay fay jàmbaar. Euh, démb ñu gis leen ngeen ànd Youssou Ndour naka ngeen ko àndee. waaw bu ñu ñëwee ñëpp di la di la nuyu di defatu ci teewaay. Hmm. man moom franchement parle Youssou toppee moo ko dara. parce que li mu def ni gën a ko jëm si jëm moo gën kayre. trois mois yoo xam ne amul samedi amul dimanche. amul samedi amul dimanche kenn mayu ko jàmm mu nangu. man dama dama dama ko toog jàkkaarloo du ko yërëm sax di xam ni carrément kii munul mais bëggul kenn meer ba suñu seen ginnaaw nii bu ñu ko may jaam ñii ñëpp samedi dañaa ko yus nañ dem sax bu dem dem géej toog waxtaan sax ñu dem géej toog waxtaan maanaam def na loo xam ne gis nga gis nga ba muy daanu si moom jéen keere man moom franchement parlé man li ma gëmoon mooy Youssou moom mën mopp doole. mais wàññi poids bi mu wàññi poids est-ce que yoon la woon. Youssou wàññiwul poids. ah ñu ci bàyyi neen dafa wàññi. wàññiwul poids de daa gëj a gëj a liggéey. dafa gëj a. liggéey liggéey bi mu def nii gëj na kaa def juste gëj naa liggéey daj coono yii nii doon na bëri di daan du daj coono daan na bëri di daan te du daj coono mais daal da coono ba man su ma ko fekkee fii mu fayar guddi gi mu sangu moo xool ko ma nag man kontaan si yow. daa liggéey. maanaam liggéey la def daa liggéey mais wàññiwul poids de daa liggéey am doole yor def mer ni mu war a mel waaw daa def daa daa mel ni mu war a mel mi ngi door a mel ni mu war a mel dip ba mu dégg sa génn kere laa la wax 2000 xaw ma lan la woon mi ngi koy door a melaat ci nit ñi ànd moom xëy na ñi ko xamul nag jàpp nañ dafa wàññi poids déedéet mi ngi mel ni mu war a mel. mais ak yooyu yëpp mu daj. mu ñëw combat bi yomb. moo ngi gisee làmb ji. waaw mooy li ma la wax léegi rek. lamb moo tëddee noonu muy maa ko njëkk a bëree lamb moo demee noonu lamb ni muy doxee mooy bis bi nga xam da nga ñëw néewal doole lamb ji nga ñëw am ndam. mais est-ce que wéetul tamit ndax ak ay mag yi nekk géejuwaay waroon ko ñëw taxaw ci bés bu toll noonu. mu nekkoon lamb soo tamit est que wéetul. ñoo ñun gëmuñu loolu ñun gëmuñu loolu parce que wéetuñu si benn yoon ndax am na si ñoo xam ne ku ne si yéen ngay demee am na ñoo am ne xëy na ñëwuñu mais fi ñu toll ñu ngi ñaanal Youssou ñu ngi koy ñaanal waaye ñun gisuñu loolu parce que ñun daan gis ba Youssou nekkee A ba ba tey jii nii ñoom ñoo fi nekkoon yokku nañ nag lim bi yokku na yokk na si ñaan yokk na si am-am yokku na si doole yokk na si xam-xam yokku na si mbooloo démb Youssou mbooloo bi mu indi boo ñëwee xam ne carrément am na mbooloo te nag ginnaaw yaala nag ginnaaw yàlla ginnaaw yàlla dañuy sant benn nit boo xam ne moom ginnaaw yàlla ñu koy sant te di ko ñaanal yàlla na ko yàlla ak Sëñ Tuubaa yokk dooleel ko li mu mën ren bu déwénee yàlla na ko mën muy Modou Touba dañ koy sant bu baax di ko gërëm ndax nit koo xam ne bu jënd ñaan jënd ñaari oto jox ko booy ñaar oto la jënd yu bees tàq jox ko booy mii di ko jox ko booy ñu ciy dem 3 mois entrement oto yi 3 mois booy yokk di dem entraînement oto bay bàllaa ngi kàkkaar duñu kaa gaare mu génn oto yi jox leen mooy yëpp moo ko génnee da ci ay coono yu métti man dem bi ñàkkee yërëm muyus moom laa yërëm na dafa ragal gàcce xaju si gàcce muyus ma ko daax critiqué man du ma ko may jàmm chaque combat dañ coupé dañ leen xuloo fi lañ toog di xuloo dañ leen toog ñëpp duñu waxtaan ndax dama ko doon ñëw mais tey amu leen lu ma koy toppee bi mu xëyee gug sama rongoñ daa tuuru ma xam ne yërëm naa ko xam ne ndaanaa ñàkk na ku ku ba sonn ñàkk na mais comme wéetu wéetuñu ndax daan nañ bëri duñu gis kenn daan daan nañ bëri duñu gis kenn daan amul Jean amul Paul Youssou am musul bëri benn nga gis benn ponkol bu mag ñëw fi ku dul Alioune Seye 2 ak ay xaritam yi muy àndal di làmb mais à part ça amul beneen ponkal musu gi ma man moom musuma xaa gis a yus maa moom ñoo yarandoo fii ñu def loolu lépp mais amul mais nag tey moom duñ daan nag ne dañoo wéet non non dañuy wutale ko suñu ngor ba tey te jàmbaar la jàmbaar pire mooy yus jàmbaar la ndax trois mois ku amul samedi amul dimanche nga koy entraîné ay xale ndaw ñu ne la yus lii gis lii neexuñu nga nangu lu xale yi nangu yaa ngi dégg moo tax dem ñëpp a génn ñëpp te ay maire yoo xam maire yi ñoo sol caaya ay sareet dem làmb ja man mi sax awma moo waral mais bi Yoff nag euh, daan na champion champion la mais nag daan na champion de daan daan champion la leer na ma leer na yàlla na coono yi yus daj ñàkk ndam moom daju ko am sa am na ndam ndax combat bi taxaw maa yus ñu maa ko indi man xam naa ne coono yu daj te caat boobu keroog bu ko gis yaa ngi dégg laax gi sax tax ragal ni keroog démb ba mu ñëwee si làmb ji mais gis dafa wàññi poids déedéet daa am doole xel mi dal mu ne si condition yu baax nekk si condition yu baax a baax a baax a baax la nekk yoo xam mosu ko am boo ko gisee nii mu toog bi firi nii nga xam ne yaa ngi gis ni mel démb na mel na tey gala jàpp ko li war a am nag mooy cërlam cërëm la cërëm la ndax parce que keroog wuti na waroon a ñàkk am ndam te lu leer naañ Youssou Baldé war a ñàkk am ndam tey mu war a am ndam ñàkk dañuy jàpp bis boobu lañ koy dañuy ñëwaat rek jàpp ni suñu bis moo ñëwaat mais amul leen lu ñu koy balaamee waaw merewuñ kenn nag merewuñ benn boo xam ne rek fonkal nga nekk géejawaay nekk mbër wala champion ñëwoo làmb ju merewuñ la parce que yàgg lañ la bëre te gisuñu la waaw di ñaan rek suñu ànd bi ñu ànd nii Cité Braque yëpp yàlla nañu ko yàlla dooleel yàlla nañu yàlla taxaw yàlla ñu yàlla dimbali bañ ba ñàkk champion waaw di gërëmaat nag mu Touba bu baax a baax a baax di gërëmaat Mour sonn na si loolu man moom yërëm muyus Mour laa yërëm ndax man xam naa lim daj. mbë bëgg naa la. delloo si Fall. Ah, ñu gis la nga ñu àndoon ak Youssou ci ay entraînement àndoon moom ci préparation. naka nga gisee woon Youssou mi ngeen doon àndal ak Youssou démb mu ñëw esat waa ah, ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di leen jox kenn ku nekk yéeguwaayam di leen jox seen yéeguwaay bu wér di nuyu quartier bi di nuyu gars yëpp xam ne làmb ji gars yi sonn nañ ci quoi mais nii la mënoon demee quoi mais gars yi sonn nañ ci su ma waxee loolu ñoom xam nañ li may wax quoi di la duy yow tamit di nuyu sa cameraman mais ñu gis démb làmb ji dafa yomb. ni ngeen waajee làmb ji nu butéel li bëree mais ngeen ñëw combat bi amul songu benn cong la làmb ji jeex. doomu daanu. c'est que ci boo gàttee xel da jàpp ne làmb ji yomb mais làmb ji musul yomb xëy na làmb njëkkante la woon mais boo gàttee xel dëgg la jàpp ni làmb ji dafa yomb mais làmb njëkkante la woon comme li Bécaye wax rek bu doon cooro mooy tax ñu am ndam dara jëy mu Moustapha duñ mës a ñàkk te parce que liggéey nañ ko te gëm nañ ko. te wóolu nañ ko tamit mais xëy boroom bi moo tuddoon lii nii ndax mën nga préparer lii sunu borom nga ñëw mu xaañ la joxkee ne waaw noonu la noonu la demee. lan ngay wax Youssou Ndour ndax ñu ci bari des fois bu ñu amee défaite dañuy xaw a découragé te làmb sport boog ñett la victoire la match ak défaite lan ngay wax Youssou Ndour. non Youssou amul xaddi fii nii ñun ñëpp fii gars yi fii amul kenn ku ci am 35 ans jëm kaw. maa ci gën a ndaw te 92 laa fi amul kenn koo xam te ne am nga 35 a jëm kaw xale lañ suba suba dañuy demaat entraînement moom laa moom nga ñu fekkee ñu koy wax léegi suba suba dañuy demaat entraînement moom xale la amul dara lu muy ñàkk ci làmb xëy na lii kay day njàngat la rek waaw njàngat la daal mais amul dara dara dara lu ñuy perte ci làmb waaw di ko ñaanal rek. caatu Yoff di ko ñaanal victoire bi jikko yus tamit ñu koy encouragé donc fi mu teg tànkam foofu la mais li mu mën a xamal doomu aadama yi mooy bu doon coono rek mooy tax ñu am ndam kon ñu démb duñ ñàkk waaye nag yàlla baax na làmba ngi suñu kanam. waaw ñoo yan kàddu nga ñu ciy dolli ñu tëj. waaw ñu leen di nuyu di leen sant bu baax di rafetlu seen teewaay fii avant tout ñu gërëm waa koñ bi. c'est de baraag bi yëpp maire yi xale yi. jigéen ñi jànk yi bàyyi ñu kenn waaw xëy na lii yàlla suñu borom moo ko moo ko namoon rek waaw maanaam Youssou moom li mu war a def yëpp def na ko man ay doomu ndey lañ moom su ñaar bokk ndey ak baay sama yaay ma ñu jóge ba yeen tubaab jalaaw ñoom ndax combat bi xam nga maire yi war a jàpp ñëpp jàpp nañ si ñëpp ñëpp surtout xaritam yi man man ma gërëm sama bopp de ndax man bokk ma gërëm sama man ñii laay gërëm ñii ma yërëm ma sama bopp de ñi laa yërëm ñii barke yàlla billaahi wóor na yàlla ndax dafa métti quoi man gis naa ne daj ci affaire bi dafa métti métti na trop nag trop trop trop barke yàlla. xam nga koy ñaax ci prochain combat mi nga xamante ni moom la jëm. waaw mooy li ma koy wax rek mooy comme saa waay comme si tali mu wax rek Youssou xale bu ndaw la man maa ko ma nekk naa ko ñaari at moo dem nee naa ko jaru ngay jooy la ngay jooy kañ nga gëj a daanu tey ñu ngi daan moom fi mu a dem yëpp dem na fa ñi nga war a ñaanal ñëpp ñaanal nañ comme bégaay li mu war a dafa entraîné ba boo gisee da koy yéenam sax da nga kii sax lan ko dal fekk entraînement yi la entraînement yi métti moo xam nga man combat bi bu taxee ba léegi dama am si ma nekkoo moo tax xam nga mais bu gisee dama xam ne carrément liggéey na yàlla xam na ko dama ko gisee non ma dama xam ne kii entraîné na waaw ndax Youssou bu jeexee xam ne entraîné na ndax combat moo moo tolloon foofu quoi combat moo tolloon foofu yàlla xam na ko waaw xam nga li ma koy ñaax mooy bu subaa mu xëy takkaat ngembam tegaat ko si xam ne lii du dara lu war a am la xam na làmb jeexagul quoi xale bu ndawal demagul fenn fi gis na fi ay samp yoo xam ne tey ñu ngi dégg daane ay samp yoo xam ne ñu ngi dégg daane ay ñaata def la ñam moom xale bu ndawal kul fenn li ma koy conseillé mooy ñàkkul dara lii lu war a am si làmb lu war a am ci yoonu làmbam la xam nga xëy na yaa moo ko nameewoon nii li mu war a def yëpp def na ko fi mu war a dem dem na fa ay mbokkam ñaanal nañ ko yaayam ñaanal na ko xam nga li ngay wax daal bu subaa mu takkaat ak dem moom ànd ay doom ndayam ñi ñii bu ñu ñu man man man sax man sax bëgguma dugg sax seen diggante ñoom ñaar ñoom ñi xam nañ ne bu baax barki yonente yàlla Muhammad tey jii su fekkoon benn la ma ma jox leen ko ñoom sax ñu jox ko ma ma toog moo ma a barki yàlla ndax biñ nekkee xale ba léegi ñu ànd ñii billaahi walaahi wa taala xam nga li daal li may wax daal mooy mu nekkaa si li war a nekk gën a fonkaat maire koñ bi moom xam naa loolu si moom sax Youssou maa moom dañuy gisee dañoo rusante wóor na yàlla ndax lan dafa jox cër billaahi moo na kii kat ah moom ay kii lañ rek mais yàlla xam na ne billaahi wala su ma ko xoolee sama lu ma ko su ma ko xoolee nii rek yàlla xam na ko xam nga te koñ bi fii nii amu fi kenn xaar ma yàlla man dëkkuma fi de mais xam naa ne amu fi kenn xaar ma yàlla bu jógee ñëpp jóg xale yu ndaw yi maanaam xale bu ndaw moo ko mën a taaree si mbedd xale bu ndaw boo gisee da nga dafa ñàkk feere mais ñàkkul feere de yàlla moo ko bindee noonu barki yàlla ñu koy ñaanal rek lii nii yam fi quoi ñaanal yàlla yàlla yàlla na yàlla yàlla leeral yoonam quoi lii nii loolu man loolu la koy wax di ñaan jàmm ci Cité Baraak di ko ñaan ci bal bi yëpp di ñaan xale bi am dam yéen lay njiglaayam di ñaan sama doom ji li defetam bii yal na ci am lu kawe njortam parce que lépp suñu borom la. Mhm. Youssou maa ngi koy ñaanal di ñaanal baayam ba ca Cambérène di nelaw ak sama baay bi ma jur. muy maami Youssou Ndour muy Sayer Thiam moo jur yaay Youssou Ndour maa ngi yaay Youssou Ndour a bokk ndey ak baay maa ngi jóge ba tubaab jalaab kii sama doom la sama taaw ñibbi na démb ñëwoon na am na fi ñaari fan ñibbi na sama beneen doom mi dafa xëy moom itamit may ñaanal Balla Gaye fu mu tëdd yal na ko fi mu jóge ak ñi fa tëddandoon ñëpp di ñaanal sama baay bi nga xam mooy yoroon Balla Gaye Youssou bu demee bay bëre rek ci baayam la doon dafa jaar ci tànki baayam Youssou fonk na ay yaayam. juste respecté na ay yaayam ku bokk ak yaayam day bay fonk na la ku bokk ak yaayam bay na la ay xaytu yaayam ngi si kon fonk na ñëpp bëgg na ñëpp kon defetam bi dafay li gën ci moom démb daa war am ndam def na li koy lépp lépp lépp def na ko ku ne yaakaar nga am parce que yaakaar moo yóbbu nit àjjana ñu xëy na lii la yàlla dogal ab jaam day nangu dogal man de jooyu ma xalangu ma xëy na xale yi ñoo mënta supporté defet bi xam nga defet moom dafa xaw a métti te xale yi amuñu amuñu maîtrise boobu. maa ngi ñaanal sama doom ji Victor li mu ñàkk ndam démb bu ñëwaatee yeneen li gën ci moom Youssou am na ñeenti ndam di ko tegle ñeenti ndam tegle na ko ñeenti ndam gëj naa daanu ci jën kay re kon li la yàlla dogal lu ko war la def na ko def na ci seen def na lépp mais démb dafa moomoon victoire bi démb démb caatu Yoff moomoon victoire bi li la yàlla dogal nan nangu dogal ma koy ñaan nag yal na ko yàlla may lu dàqaat li di woon démb yal na bëggaat ci beneen combat ci barke Seydina Mohamed gudd fan ak wér laa koy ñaan yàlla mos ko seytaan ak cat di ñaanal nag ñu muy àndal ñëpp ñu ci Alioune Seye laay commencé Mbaye Fall ñoom Samba Lo bi ñoom Sitta ñoom Bekkaay gu ñuy ku lim juum ñoom Modou Touba su su Modou Touba dañ ne fas moo gis daa am roppi mais Modou Touba mooy première mooy première macha allah yal ko yàlla dooleel yal na ko yàlla jàppale Lamine maa ngi koy ñaanal Lamine. te naan Lamine Golo xaw ma moom it ku baax la ñoom ñëpp gis naa seen taxawaay maa ngi yaayam bokk ndey baay xale nga mu taxawaalu damaa toog di xool xale yi di ko contrôler fii démb dafa jax Youssou démb moom moomoon ndam li mais ndam li moo ko moom da koy gagné dañ moo ko moom moo ko moom kon ki ko moom yal nañu diglaayam may ñaan ñu ànd doom ñëpp muy góor muy jigéen mag ndaw di ba ñoom Sitta xale yëpp ñoom Bekaay ñaanal naa ne ñëpp maa ngi leen di ñaanal ak góor ak xale boobu nu mu tudd ki tent bopp bi. mbër yal na leen yàlla doole yàlla jàppale seen ànd bi yàlla bu ko seytaane yàq yal na nu yàlla may beneen victoire mu gën moom ngeen baal ma àq bu bu bu bu guddee sax meex lépp macha allah.